ñu ngi sant yàlla ñu ngi delloo di sant yàlla yi tamit cant boo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem di julli ak sëlmal di ñaan borom bi dolli ay xéewal sangam bu sang bu tedd ba alayhi salaatu wasalaam di sant suñu kilifa yi jiital ci xalif généraux yi ci taxawu bi nga xam ne taxawu nañ ko processus bi ba mu agsi fii di sant mbooleem amiru association islamique yépp seen taxawaay rafet na loolu foo ko takk wees na ko di sant société civile bi nga xam ni ñoo ngi accompagner processus bi di sant église bi euh, démb rek jokkoo ak secretaire particulier bu cardinal bi di sant aussi euh, bois sacré bi le roi de Souris bàyyiwuñu benn couche ci Sénégal koo xam ne ñoo koy sant lii nag journée bu historique la lu am solo la ci askan wi xam ne ni ñu tëggee réew mi république la lu ñëpp bokk lu ñëpp bokk nag des ci diisoo des koy pencoo ba tax na mbir mi nga xam ne sénégalais yi bañ nañ ko li ci jaaru te yanu ci maanaa mooy ñu légiférer ci ndax bu dul loolu askan yi dana jóg fajal seen bopp te loolu mën naa yëngal am réew loolu mën na indi fitna mën na indi jiyee kon nag ñun li ñu waroon a def def nañ ko askanu Sénégal it li mu waroon a def def nañ ko waaye tamit rafet naa njort fii mën a wax ni député yi tamit incha allah ñoom liñ ci war a def dañ ko def ndax seeni nattangoo jël nañu. proposition de loi bi ñu ànd ak ñoom ñu déposé ko waaye xam na ni ñañu fa fekk seen i bis bu ca yegg see rafet nañ jot ci ne ñoom ñëpp danañ ko danañ ko voté ndax bu ñu fàttee ni ay sénégalais lañ ñoom bu ñu fàttee ni boroomi njaboot lañ aussi bu ñu fàttee nii boroom yu mbokk lañu ci réew mi kon lépp luy indi ak dal ak jàmm ak jëme réew kanam loolu jàpp nañ ne moom mooy seen yitte. kon loolu ñoo ngi leen ci sant ñoo ngi leen ci gërëm di leen xaar ci loolu yi tamit euh, fi may mujjee rek mooy di sant bu baax euh, sëñ Mansour si Jamil ndax euh, bàyyi ma ko fi woon sànq honorable député yónnee woon naa ko message sax xam naa ni jëm naa ko woo ay yoon jotuma ko wala amee fi jox na ko ko di nuyu bu baax ak sëñ Bassirou Mbacke yi tamit di lu taxawaay bi ak ñi nga xam ne yëpp daje nañu incha allah daal askan yi li mu waroon def def na léegi nag ñoo ngi xaar sunu mbokki député yi incha allah rabbi lii liñ ci war def ñu def ko te loolu ñu ngi koy séntu ci ñoom. di wax rek it euh, président de la république le gouvernement ci moom mooy le premier des sénégalais mbir mii ñor askan wi man jàpp naa ni moom la war a gën a ñor fi nekk nii ndax yaakaar naa ni fu askan bi tiire rek foofu la war a jëm. fu askan wi jublu yi tamit foofu la war a jëm kon ñoo ngi koy woo itam ci lim ci war a mën a taxawee mu taxaw ko ci yem ba askan wi xam ni féete na ak ñoom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maama sali allahuma yaa xay maama sali ala sayidina muhammadin salaatan tunjina biha min jamiin wal afaati wa taqdirana biha jamia hajat wa tahiruna biha min jamii sayar wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tuballiguna biha axsal gaayati min jamii xayaat ba'dal mamaat innaka ala kulli shay'in qadir lii nga xam ne moom la ñu sumb yal nañ si yàlla jox amiin yàlla am na ko mën na ko sañ na ko yàlla na ko def bi jaay nabi sallallahu alayhi amiin amiin si